asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngeen dal ak jàmm ci xibaar yi digg bëccëg yi bayeekoo QTV ak Q radio bëccëgub tey bi ngeen di si ànd ak Xadijatu Koli ñu seeti boppu xibaar yi. jëwrin bu ñu dénk wàllub kaw a kaw gi ci altine bi ñoom ñoo commencé ñetti fanum ndaje matuwaay gi naka ñu jël ko pour waxtaani yokkute ak it xaatim goo xam ne naka ñu ngi ko fas yéene bindi nar koo boole ci sat yoo xam ne naka ñu ngi koo jëfee ci seen wàllub liggéey bi xaatim gi naka liñ ci fas yéene dugal mooy pour gis ne ndaw ñi naka nañ mën a am jàng ju sori maanaam dinañ toog fu sori te terewul naka nañ jàng jaaral ko ci buntub xarala gi governor bu central bank bu Gambia bi moom nag ci ndaje goo xam ne am nañ ko taskatub xibaar yi jàll ko seenub diggante ak seenub àndandoo yi génnee na di xibaar di xamle ne ci atum 2022 lu war a toll si ñeenti téeméer juróom-ñaar fukki million ci xaalis yi dollar boobu la ñu denc naka sa bitim réew mu doon nag xaalis goo xam ne dañ koy war a jëfandikoo pour jënd naka dund yoo xam ne ñooy bàyyeekoo sa bitim réew ci matuwaay goo xam ne nag jël nañ ko pour yaxanal li nga xam ne nag mooy njula gi bu ñëwee nag seenub diggante ak seenub client yi banqaasu kii groupe bi nag ñoom bokk nañ ci compagnie yoo xam ne nag ñu ngi bokk si fukk ak juróom-benneelu édition trade fair goo xam ne nag banqaasu GCCI bi ñoo ko dee oote bu ñëwee nag ci biir réew mi matuwaay gi ñu jël ko rek pour gis ne yombal nañ naka jumtuwaay ñooy jaay pour seen client yi tamit naka ñu yaxanal seenub njula gi mbokk yi li ya doon boppu xibaar yi ñu te bu ñu dellu seen ñu yaatal xibaar yi fi jot am ci bëccëgub tey bi jawrin bu ñu dénk wàllum njàngab kaw a kaw kii ci altine bi ñoom ñoo commencé ñetti fanum ndaje pour naga nangutoo ci ab xaatim goo xam ne nag ñu ko fas yéene bindi nar koo boole naka ci satte ñu nekk di jëfee ci seen wàllub liggéey bi xaatim góole naka dafay ëmb umm ndaw yi naka seenub sore wala sax njàngub sori ki mi war a tax naka ndaw bi di nekk fu sori waaye naka du ko teree jàngate lii naka dañ ko fas yéene jaarale ci buntu xarala yi ci matuwaay goo xam ne naka ñu ngi ko jël pour gis da dooleel ne njàng ju sori ji jaarale ko naka ci buntu xarala ki ministre bu ñu dénk wàllum njàngab kaw a gëstu gi wàllum science ak technology ñoom ñu ngi lëkkaloo ak seen àndandoo yi banqaas bu ci Commonwealth of Learning ak it bu ñu Validating National Open and Distance Learning mu doon naka ab xaatim goo xam ne naka ñu ko fas yéene indi ci biir réew mi ku ñu naan jéen ak boo moom mu doon naka advisor si jëwrin bu ñu dénk wàllum njàngab kaw a bi moom naka na kàddoom di wax naka njëriñ nekk ci wàllum njàng mi surtout ma naka njàng ju sori gi mu ne naka lii dañ ko fas yéene dooleel pour yaxanal mbirum njàng mi bu ñëwee naka si taaliba yi tamit naka matuwaay gi dañ ko jël rek pour lëkkaloo ci ak buntu xarala yi tamit naka di ko jëfandikoo ci biir réew mi njàng ju sori nag duñ ko mën a def fekk jaarale wuñ ko nag ci buntu xarala gi te yi nag mbir la goo xam ne ci biir àddina si dëkk yi bari naka ñu ngi koo jëfee surtout ma nag si jamono joo ne àddina saa ngi ëmbeeg mbasub coronavirus bi Gambie sax ñu ko doon jëfandikoo ndax nag taalibe yu bari yoo xam ne ñu ngi jàng si njàng kaw kaw gi ngi toogoon nag ci seenu kër yi waaye nag terewul leen a jàng ñu ngi jëfandikoo seenu laptop yi wala sax machine yoo xam ne ñu ngi ko am dugg nag ci buntu xarala gi pour gis ne nag mën nañoo am seenum njàng mi lii naka ñu ne mbir la goo xam ne ñu ngi koo bugg a dooleel yi nag naka taalibe yoo xam ne naka ay ne naka ñu suuf gi ñoom naka seen njàng mi ñu ngi le ko doon jaarale ci ay rajo ak i tamit ay télé te jamono jooju réew maa ngi jànkuwanteel mbasub coronavirus waaye naka terewul xale yi ñàkk seen njàng mi ñu gis ne naka mbirub yokkute la professeur Mamadou Moustapha Fane moom mu doon naka dean bi ci School of Business and Public Administration ci université bu Gambia bi moom naka wax na ne njàng goo xam ne naka ñu ko fas yéene indi muy njàng ju la goo xam ne naka moom mu koo rafetlu te war a sànni seen loxoom Anthony G Mendy moom mu doon naka director of tertiary and higher education nekk di liggéey ci ron ministre bu ñu dénk wàllum njàng kaw kaw gi mbirub gëstu gi wàllum science ak technology moom naka gaaral na kàddoom ci taxawaayu ministre gi mi wax ne naka xaatim goo xam ne naka ñu ngi ko indi di ko waxtaanee pour gis na naka fesal nañ ko mbir la goo ne naka dina dooleel wàllum njàng mi te it naka dina jàppale ministre bi pour naka ñu gën a dëgëral seen liggéey ci biir réew mi jàppale naka xale school ba nga xam ne naka am seenum njàng mi te fekk naka duñ ci dànkuwanteel benn jafe Central Bank bu Gambia bi ñoom naka am nañu ndaje jaarale ko seen diggante ak taskatu xibaar yi bii naka doon ndaje goo xam ne naka dañ ko dee faral di def ak taskatu xibaar yi si commencement wu at bi diggub at bi ak itamit seen jeexantalu at bi te naka ndaje gi seen monetary policy committee bi ñu ngi ko def naka fukki fan ak juróom-ñaar dem ba si fukki fan ak juróom-ñett si weeru février mu xewoon naka ci talaata bi banque bi naka ñoom xamal nañ taskatu xibaar yi yokkute goo xam ne naka ñu ngi ko nekk di am ci seen wàllu liggéey bi ak it jafe-jafe ci nekk di jànkuwante kenn Central Bank gouverneur bi di wuyoo ci Buha Seydi moom naka ci kàddu koo xam ne gaaral na ko ci kanamu taskatu xibaar yi xam na ne naka na ci weeru décembre ci atum 2022 koppar gi wala tooru si ñeenti téeméer juróom-ñaar fukk si million ci xaalis dollar boobu naka la ñu denc sa bitim a jàppale réew mi pour naka ñu jënd ay dund yu doy naka ba balaa ñoo demee ci diggub xaajub yu at bi mu ne naka dinañ jënd dund yu doy pour isi ko ci biir réew mi dund goo xam ne mën a jëfandikoo ba tey ci ndaje goo xam ne naka def nañ ko taskatu xibaar yi monetary policy bi ñoom naka seenum ndaje gi dañ ko di faral naka di amal taskatu xibaar yi saa yu nekk ci biir at bi matuwaay gi naka ñu ko jël rek pour xamal askan wi seenub liggéey bi doxalinam mbirub koppar gi ak itamit sarta yoo xam ne naka ñu ngi koo jëfee bu xaasee di moom mu doon naka gouverneur bu central bank bu Gambia bi mu doon ne chairman ci banxaasub MPC bi moom naka gaara nag di wax ne jafe-jafe goo xam ne naka mu ngi ci wàllu koom-koom gi mbir la goo xam ne naka àddina si yëpp la lëmbee mu naka ndaje goo xam ne naka def nañ ko nañ ci wax naka mbir yokkute yoo xam ne yooyu lañ nekk di am mu ne naka jafe-jafe gii mu ngi leen di indil ab dellu ginnaaw waaye naka terewul ñoom ñu ngi def seen kéem tolluwaay kattan pour mën a am naka ab yokkute ci seenub liggéey bi mu ne ci weerub janwaari atu 2023 World Economic Outlook bi mu ngi wane ne naka yokkute am na ci téeméer bi ñaar bu juróom-ñeent ci at bi ñu nekk waaye naka boo bàyyee xel ci atu 2022 muy ci at bi ñu génn ci weerub octobre gestu gi naka mu ngi doon wane ne yokkute bi naka mu ngi tolloon si ñaar tomb bu juróom-ñeent bu ñëwee naka ci téeméer bi bu ñu sukkandikoo ci gouverneur bu central bank bi di Buha Seri mu ngi wane naka jafe-jafe goo xam ne mu ngi lëmbi àddina si mu ngi indi naka ab jafe-jafe ci dëkk yi yëpp waaye naka ñoom ñu ngi séentu yokkute te yi naka ñu ngi koo doole naka ñu ngi def seen comme tolluwaay kàttan pour gis naka mbiru fuel bi maanaam essence gi ak it mbiru dund gi ñu jëm koo wàññi naka bu ñëwee ci biir réew mi tamit naka lañ def seen kéem tolluwaay kàttan ba nga gis na yokkute naka dina gën a am ji koom-koomu réew mi bu ñëwee nag ci wàllub koppar gi banque bi nag ñu ngi ji wone ne seenub koppar gi tamit am nañ ci ab yokkute boo xasee di mu konte di wax ne ginnaaw yokkute yëpp ñu ngi am nag ab jafe-jafe goo xam ne nag moo ko ëmb waaye nag ñu ngi def nag seen kem tolluwaay kàttan tëral ci nag ay satta pour gis nag gestu nañ mbir yi monetary policy committee bi nag doon na banqaas goo xam ne dañ ko taxawal ci weeru julaay ci atum 2004 te banqaas bi nag liggéeyam lu mu doon mooy pour tëral ay satta yoo xam ne nag central bank bi daf koy jëfandikoo ngir mën a am nag yokkute ci seen liggéey bi tamit nag committee bi ñoom ñooy gestu doxali nub liggéeyu banque bi ak mbir yoo xam ne nag mu ngi aju ci wàllu koppar gi mbirum dem bee dikk bi ak seen wàllub liggéey bi tamit naka comité bi ñoom dinañ gestu banque bi seen liggéey bi ñetti weer gu nekk pour xool naka yokkute yoo xam ne naka yooyu lañ si nekk di am te ñoom naka ñooy doon nit ñoo xam ne naka ñoo nekk diggante nguur gi ak it central bank bu Gambia bi kii groupe bi ñoom naka ci taxawaay goo xam ne naka jël nañ ko pour yaxanal naka mbirum njula gi jaar na ko seenub diggante ak seenub client yi ñu ngi bokk naka si GCCI seenub ndaje gu njula goo xam ne naka ñu ngi koo def ñu tuddee ko trade fair mu nekk di xew naka sa bi juróom bii naka doon na GCCI seenu fukk ak juróom-benneelu édition trade goo xam ne naka ñu ngi koo def ci biir réewu Gambie bi kii groupe naka doon na kuréel goo xam ne naka ay compagnie yu bari naka la ëmb te yi naka kuréel la goo xam ne naka mbirub jula gi daf koy dooleel bu ñëwee ci biir réew mi tamit naka seenub tuur dañ ko ràññee trop bu ñëwee naka ci biir réew mi bokk na naka ci compagnie yu gën a rëy ñoo xam ne naka ñoo gën am wala sax ñoo gën a jël ay kat bu ñëwee naka ci biir réew mi tamit naka bokk na ci baaxaas yoo xam ne naka ñu ngi dooleel ndaw ñi ci wàllum jula gi wala sax si mbirub liggéey gi ngir ñu mën a taxaw seen bopp ci matuwaay goo xam ne naka jël nañ ko pour yombal naka seenum njula gi ngir gis na naka seenub client yi dina yomb ak ñoom ci groupe gi naka ñoom bokk nañ si ndajewum njula goo xam ne naka GCCI bi ñu ngi ko oote te ndaje gi naka lu mu doon mooy pour dajale ñi nga xam ne naka ñooy jaaykat yi ñu mën a lëkkaloo tamit naka mën a wane jumtuwaay yoo xam ne naka ñu ngi ko amee ñu di ko jaay te kiw groupe naka bokk na ci compagnie yu gën a yaatu bu ñëwee ci biir réew mi naka ñu ngi ëmb compagnie yu ci mel ni sel Espace Moto Qmoney ak yeneen i bànqaas yu njula yoo xam ne naka ñu ngi ci dugal seen loxo dafa bokk ci mbir yoo xam ne naka jël nañ ko pour jot naka seenub client yi tamit naka yombal seenum jëla gi bintu ko lii moom mu doon naka koo xam ne moo nekk di bàyyi xel espace moto seen store bu nekk sa bijilo moom naka gaara na kàddoom di wax jumtuwaay es ees yoo xam ne naka am nañ ko pour borom moto yi tamit ci njëg goo xam ne naka ñu ngi koo jaayee yombale goo xam ne naka ñu ngi ko def Awa Ba Moussa Ba ak Alhaji SN Diallo ñoom ñoo fa toogal naka kiw Money ak Qcell seen store bi ñii ñëpp naka gaaral nañ seen kàddu di wax mbir yoo xam ne naka ñu ngi ko am ñoom it si trade fair ak it yombale goo xam ne naka ñu ngi ko def tamit naka nuñ ko yaxanalee pour seen client yi ak it njëriñ goo xam ne dina ko amal naka client gi Q Money naka ñoom ñu ngi yëngu ci mbir yu bari surtout ma naka ci yónnee ak it jël xaalis jaarale ko ci diggante askan wi neen tamit naka dañoo may seen client yi pour ñuy mën a dugal xaalis tamit naka naka ñuy mën a jël xaalis mu yomb jaarale ko naka ci seenu mobile bi dafa bokk tamit ci seenu service bi pour nga cee mën a jënd cash power tamit naka di mën a fay sa yenn bill yoo xam ne naka yaa ngi am trade fair bi nag buntu jula la goo xam ne nag dafa ubbil njulay buntu pour ñoom it neen nag ñu lëkkaloo surtout ma nag jigéen ñi ñoom naka ñu mun a am buntu ngir mun a fesal wala sax wane li nga xam ne nag loolu la ñu moom ñu mun a dooleel seen bopp tamit nag gis na askan bi nag nañ xam seen jula gi édition bi nag muy seen fukk ak juróom-benneel bi ñu ne nag dina bokk ci édition yi gën a xumb bu ñëwee nag ci trade fair ñu nekk di def ci biir réew mi nee na Caam mu doon nag ab doomi réewi Gambia mu doon it ab njula di jaay nag ay yére wala sax ay products yoo xam ne nag danga koy jëfandikoo pour sa yaram moom nag mu ne am na scrub boo xam ne nag danga koy jëfandikoo ci sa xar xanam am na ci benn boo xam ne nag pour sa yaram la tamit nag am na yu bari yoo xam ne nag mu ngi koo jaay te yu baax la yu qualité la mu ne moom nag dugal na com ci trade fair bii nii pour gis ne naka client yi yombal na leen naka li nga xam ne loolu la nekk di jaay pour xamal leen tamit quality goo xam ne naka mu ngi ci lu moo jaay mu ne mu ngi ñaax ñëpp pour ñëw naka ñu patronise ko surtout ma naka Gambians yi Fatoumata Touré moom it doon na ab doomi réew bi Gambie muy jigéen muy dugal loxoom naka si wàllum jula gi moom it doon na koo xam ne naka dafa yàgga bokk naka ci trade fair bi surtout ma naka ci at yi ñu nekk mu ne moom naka product bu moo jaay lu baax la mu ne moom daf dee jaay ay yire ay spray tamit daf dee jaay naka ay baak ak i dàll mu ne moom naka amaangut benn complaint ci client mi képp koo xam ne rek jënd nga mooy jaay danga ci dee am naka kontante mu ne naka ndaje yu mel nii ñoo de mun a tax naka ñun jule ñu am naka ñu ñoo dooleel tamit naka nit ñu xam ñoom treizième atu ren bi naka ñu ngi ko ngénte fukki fan ak juróom ci weeru février te naka nañ ko ndar keppal fukki fan ak juróom-ñeenti ci weeru màcc at bi ñu nekk kii groupe naka ñoom seenu client yi ñu ngi leen di ñaax pour naka ñu dem ci trade fair bi nekk sa bourse bi ñu mën a am naka wala sax enjoy ci product yoo xam ne naka ñu ngi koo jaay mu yomb te naka kii groupe gi ñu def naka seen comme tolluwaay kattan gën a wàññi naka jumtuwaay yoo xam ne ñu ngi koo jaay pour seenu client yi ñu mën koo jënd te lii naka ñu ngi koo defee ci trade fair bu nekk di am naka sa bijilo buntu jàngeekaay bu ñu naan media academic for journalists and communication ñu gën leen a xamee si Majak ñoom naka ñu doon buntu jàngeekaay goo xam ne naka dañu taxaw pour jàngal askan wi wala sax ndaw ñi lu aji naka ci wàllu tasub xibaar gi ñoom naka ci doxantu goo xam ne naka def nañ ko ci seen buntu jàngikaay bi waxtaan ñu ak ndaw ñu fa nekk te ñu si bari naka na ñu yéene goo xam ne naka boobu la ñu am dem jàng naka li nga xam ne moo aju ci liggéeyu tasu xibaar gi ak it yéene goo xam ne naka am nañ ko pour war koy mën a doon naka ëllëg wala mbir yoo xam ne naka ñu ngi ko fas yéene def ëllëg bu ñu pare naka si njàng mi journaliste yi mi maanaam ñi nga xam ne naka ñooy taskatub xibaar yi ñoom naka ñoo jiitu bu ñëwee naka ci tasub xibaar gi bu ñëwee ci biir àddina si te ñii naka dañ dee génnee xibaar yoo xam ne dafay amal askan wi solo dañ dee bind dañ dee edit tey naka dañ dee report buntu taseekaay xibaar yu bari yu ci mel ni radio ak télévision yi wala sax newspapers yi mbaa magasin yi ñoom ñooy yëngu ci wàllum mbind mi tamit naka tasaare xibaar yi buntu taseekaay xibaar yi ci mel ni télé ñoom ñooy wane xibaar yi tamit naka adi woon askan wi mbir yoo xam ne naka ñu ngi ko bëgg a gis ci seen dund yi wala sax ci seen biir réew pour waaye naka war a mën a doon ab journaliste foog nga jaar naka ci buntu jàngeekaay yi nga mun a xam naka sarta aki i taxawaay goo xam ne naka moo ko ëmb mun a xam tamit matuwaay goo mën a jël naka pour génnee xibaar gu dëggu xibaar goo xam ne naka day indi jàmm Lamine Bara moom mu doon naka ab diploma student moom naka wax nañu lu tax naka mu bugg a doon naka ab taskatub xibaar mu ne moom naka di ba mu nekkee xale ba muy dem school ci la am naka yéene pour bugg a doon naka ab journalist Bara mu ne moom naka lu tax sax mu bugg a dem naka ci buntu jàngeekaay bi mooy ne naka daf ko dégg am na ci yenn xaritam yoo xam ne dañu jàngee naka si buntu jàngeekaay bi mu ne ci la dem naka Facebook gis naka seen taalibe yi luñ dee bind naka ci buntu xaralay mu ne loolu naka gën ko yokk jom mu ne xaaral naka ma dem si Majaak mu doon def loolu am na xaritam goo xam ne naka laaj na ko ne ko ma dem Majak wala ma dem naka si université bi mu ne kooku naka si la ko waxal ne Majak naka soo fa demee di nga yëngu naka ci practical gi maanaam liggéey bi lu mu laaj naka lu bari dinañ la si jàngal mu ne boo jàngee foofu naka ba pare mun ngaa dem naka si université bi nga def naka sa diplôme buntu jàngeekaay bi naka ñu ngi ko taxawal depuis si atum 2010 te naka Gambia Press Union ñoom ñoo doon bànqaas goo xam ne naka ñoo ko ëmb pour gis naka train nañ wala sax jàngal nañ ndaw ñi naka lu dëgg loo xam ne naka mu ngi aju ci liggéeyu tasub xibaar gi Fatou Sakho moom it mu doon naka ab diploma student moom naka wax na lu tax naka mu bugg a doon ab journaliste mu ne moom naka daf daan seetaan télé lu bari ba mu nekkee xale mu ne te saa yu gisee naka nit mu génn télé daf dee kontaan lool daf dee wax boppam lii laa bugg doon lu mel nii laa bugg a def naka bu ma màggee ne looloo tax naka mu dem Majak pour gis ne naka jàng na ndax dégg na ne Majak naka dañ dee jàngale jàng bu dëggu jàng goo xam ne naka moo laa wan sotta yi yoo xam ne naka bu ndata seekaay xibaar yi yooyu la ñu soxla te yi naka ñoo laa jàngal xam-xam goo xam ne boo ci pareñ di nga mën a am naka liggéey Aboubacar M Diallo moom it mu doon naka beneen diplomate student moom it naka wax ne ne mbirub journaliste naka mbir la goo xam ne daf ko sopp te naka dafa bëgg a doon ab journaliste pour waaye naka doon ab journaliste nu mbir goo xam ne naka dafa yomb ndax naka dinga nga war a jaar fu sori balaa nga mën a yegg naka fi nga bugg a yegg waaye naka buntu jàngekaay ci mel ni Majak ñoom naka ñu ngi taxaw pour gis ne jàppale nañ xale yi yokku leen xam-xam tette leen ba nga xam ne naka nañ bugg doon lu ñu bugg doon naka ëllëg Awa Gassama moom mu doon naka foundation student moom naka wane na mbégteem ak kontaanteem pour doon naka ab taalibe si buntu jàngekaay bii di Majak mu ne luñ koo jàngal naka musul ko woon a xam mu ne mu waaye naka njàng mi lu ci gën a am kontaante mooy naka practical bi lañ la jàngal maanaam nooy doxalee liggéey bi wan la tamit machine yi noo koy jëfandikoo nooy bindee ak it nooy tasee xibaar yi mu ne naka lii mbir la goo xam ne naka dina tax moom mu doon naka tasu xibaar gu dëgg gum bugg a doon ëllëg media academic for journalist and communication muy buntu jàngekaay bi di majak ñoom naka seenu buntu jàngekaay bi lu ñu nekk di def naka séentu wuñ ci benn profit te naka dañu taxaw pour gis ne dooleel nañ démocratie dooleel naka sarta yu ànd ci liggéeyub tasub xibaar gi ak yaxanal naka mbirub jàngub tasub xibaar gi seeni buntu jàngikaay bi naka dañ lay joxe njàng gu qualité te yi naka dañoo tax xale yi naka ñu gëm seen bopp mun a génn naka pour tas xibaar yi dëggu tamit naka àndale ko ak sarta yi mu ëmb pour waaye naka doon ab taskatub xibaar dafa laaj naka liggéey bu dëggu liggéey goo xam ne naka liggéey gu noobul la te yi naka pour ndaw mun a liggéey télé mbaa rajo boo jaaree naka si majaak dina doon naka buntu jàngikaay goo xam ne dina la tette tamit naka dina la won yoon wi mbokk yi lee na naka xibaar yi leen fi amaloon ci bëccëgub tey bi yaata lii ngeen di si doon ànd Xadijatu Koli di leen jaajëfal ci ànd bi di ñaan yàlla mu may ñu ñeen doog jàmm jër ngeen jëf ci topp bi wasalaam